صفات صالح المريد باختصار أربعة نزمتها خوف اختلاف mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi aliyil azim barke borom tuba barkeb Cheikh Modou Rokhaya asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi ñoo ngi amaan mbégte di ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne moo di ngóobum tooli Longoor Mbay di dëkkub euh, Serigne Cheikh Thialla Mbay muy tool yi nga xam ne moom lay bayal at mu jot euh, Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacke di ko jébbal ko fi nekkal di Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa Serigne Modou Rokhaya Eh, ren jii nag xam ngeen ne tool yi ni ma ko daan defee saa yu ko masa bay ba noppi moo ko daan góobal boppam lippi ko jaag ko bojj ko rañ ko ci ay camion andil ko seriñ bi waaye ren yaatuwaayu tool bi ak eh, xeruk eh, ab liggéeyam tax na bi liggéey bi noppee mu delluwaat ci sëriñ Cheikh Anta xalifa sëñ Modou yi ne ko nag tool ba noppi na bu ma sañoon ñu ñëw góob si ko loolu nag la sëriñ Cheikh Anta yëkkati woon ay kaddoom Eh, jox teg ko ci loxol rakkam di Serigne Jili mbakke mu Serigne Modou Rokhaya mu woo seex si nga xam ne ñoo aju ci kër gi yëpp. Eh, ñu bokk fi daje eh, ca suba tey di di àllarba fukk ak fan ak ñeent ci weeru tubaab dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru wolof ginnaaw màggalu Touba. ñu daje fii ci Longoor Mbay fas yéene ànd nag ci liggéey bi nga xam ne moo di tool yi Serigne Modou Rokhaya yi nga xam ne at mu jot Serigne Cheikh Thialla Mbay dana ko bayal Serigne bi ñu fas yéene ànd ak yéen nag dugg ci biir liggéey bi Euh, taatankat yi nga xam ne ñoo bokk ci seex si aju ci kër Serigne Modou Rokhaya waaye nag di ay jëwriñ ne ci biir liggéey bi ñoo ànd ak ñoom déggu kàddu témoignage yi nga xam ne danañ ko seere ci liggéey bi waaye seede ko ci jàmbaar ji nga xam ne moo di Serigne Cheikh Thialla Mbaye mu Serigne euh, Cheikh Anta mu Serigne Modou Rokhaya moom Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh waaye di doomi Serigne Abdou Khoule Mbaye mu Longoor euh, ñu fas yéene ànd ak bokk yi ci liggéey bi. فيدرك Rabbul sëñ Cheikh mo tey moo moo woote fii mboolem tund ndogal ak mbaakol te tey fii ci liggé sëñ Cheikh Anta bi waaw kon nag di di ñaan yàlla mu yàgg te yàgg fi yàgg fi te yàgg fekk ñun ci fekk maam Cheikh Anta waaw ñun ñëpp daal noo ci ginnaawam di ko yaakaar adduna ak alaxira waaw waaw noonu noo ngi ñaan yàlla ak sëñ Touba ak maam mu yàgg fi te yàgg fekk ñun ci barke Borom Touba barke maam Cheikh Anta waaw. jërëjëf ñu jàkkaarloo ak Serigne Moussa Thiam Serigne Moussa Thiam di xalifab euh, ki nga xamante ne bii moo di Serigne Alla Thiam Serigne Alla Thiam bokk ci njabootug Serigne Mbacke Thiam moo xamante ne bii ca taalibe ca njabootug maam Cheikh Anta gu mag lañ bokk mu bàyyi koo gaawaan ànd ak njabootam sëñ musa wuy si nga tey ci liggéey bi nga xam ne Serigne Cheikh Anta na ko ci tool yi Longoor bay ci lik euh, teewaayu Serigne Cheikh Thialla. asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, euh, ci mën a wax mooy. kàddu yu contentement ndax ñaq woo xam ne boo ko génnee xam nga fi nga ko ki nga ko ñaqal te muy jàmbaar sam joo xamante ne bi eh, waxtu yàlla yoonu murid yëpp umpale wuñ ko rawatina na kër gi mbokk kër borom gaawaan xam naa ne yàlla nañu dañ koy santaat sax bi mu nu xéewalee ñu bokk ci moom ndax buñ bokkuloon ci moom it fu mokk di ko ñee di ko ñee ñam jiite waaye nag ba ñu yàlla dimbalee bañ bokk ci moom dañ koy sant di ko eh, njukkal ci loolu fu ñu toll cay yokk suñu laxasaay ndax fi ne nii xam nañu ko sañ si Anta euh, yàlla wàccuwaay bi mu ko jox ci yoonu murit ak pas-pas bi mu am ci liggéey euh, yoonu murit xam na ne bu ko amoon feneen amoon euh, dañ ko dañ ko dañ ko ni waaye nag dañuy santaat yàlla bi ko yoonu murit amee ñuy dellu santaat yàlla ñun bi ñu ci yàlla boolee ci moom moo tax nag kon liggéey bi tey lépp loo xamante ni bii daal nit son sot na ko ci ñaq yàlla na luy génn jàngooraam ju ci yaramam ba mu set wicc cay dollee ko wér dellu di ko delloo ci yaramam wér gu yaram ko mat sëkk ca def tawfeex ak taysiir ca ñu moom mi nga xamante ne mooy ndey mbind gi nag ñu ñaan yàlla suñu borom jox ko fan wu sut fanu maam maarama ndax liggéeyal sëñ bi dong la fi nekk ci lay xëy ci lay gont mosuñoo woo ci lu muy jariñoo lii nii tey mu ñuy liggéeyloo li may wër te wër mooy bu noppee njariñu sëñ bi la waaye du dellu ci moom kon kooku nag ku mu jiite xel mu dal la ci moom yàlla na ko fi yàlla yàggal daal sëñ Cheikh Thialla Mbaye mi nga xamante ni bii nag moo taxawee taxawaay bii ba euh, sëñ bi di taxawee pour ñu taxawee sottal lii euh, képp ku ne amel na ko njukkal ndax lii mu taxawee taxawoon na ko ki nga xamante ne bii ku ko jara taxawee la muy sëñ Cheikh Anta ca pas-pasam bi ma demee ci penc mi sax damaa békk ndax li ma békk mooy ah penc yi longoor yi di bari na fi waaye boo yemee ci penc mi di nga békk ndax lim fi mu bokk ak ki mu doon ndax mbégte la lay jox ndax xar kanam ba ngay gis ca penc ma loolu nag ñun ñëpp war nañ cee jàngate ni njabootu borom Gawane daal fu mu nekk daa war ne fang ca loolu mu ngi nii tey feeñ na yal yàlla yokk ay taxawaayam yokk kattanam yokk wéram yokk wërsëgam ca lépp nag delluwaat di njariñ sëñ bi mu boole yooyu yëpp nag yokk ci fanu suñu kilifa gu tedd gi muy sëñ Cheikh Anta Mbacké yàlla yàggal ko fi lool ca wéral cëram ba mu sut maam aw fan ndax ay mu gudd njariñul yoonu murid la fanamu gudd njariñul lislaam la yàlla ko fi yàlla yàggal. asalaamaaleykum ñoo ngi sant yàlla bu baax. di fëddaliwaat sunu taalibe nekk ci ginnaaw sëñ Seex Anta di déglu ndigal di bàyyi tere foo si yéene lépp lu mu sumb rek noo ànd caag moom di ñaan mu yàgg fi lool te wér nun taalibe yëpp nag ñu ne Ndakaaroog ñu ne Tuubaa nun ñëpp noo ngi ci ginnaawam lépp lu mu woote rek noo nga ca waaw yal na ko sax borom yàggal te wéral ko nu yàgg ànd ak moom barke maam Seex Anta di sant rek liggéey bi moom neex na lool buñ sañoon lii ci lii rek la ñuy yëngu ndax lii rek lañ xam mooy liggéey Serigne Touba rek lépp lu ñu am ci lañ ko amee lépp lu ñu ko ko ñu ci liggéey Serigne Touba rek lañ ko jëmee rawat nag suñu bunt bi maam Cheikh Anta lépp lu ñu am ñu waa ngay xam sa lañ ko jaar 1912 la waajur demoon si maam Cheikh Anta kon lu ñu am te du liggéey rek xamuñu ko asalaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa mbokki julli mbokki daal bi ngi leen di nuyu turu sëñ Cheikh Anta Mbacké sunu sëriñ mu woote fii Ngop di Touba Longor ñu teew fi ci turu sëriñ Mortin ak waa Baari Ndondol yëpp ñaan sunu borom yàggal sëriñ Cheikh te képp ki teew ci tool yi sunu borom faj say aajo yàggal si Muntaxa yàggal si Fallou Galass la mi nga xam ne moo indiw jumtuwaay bi nga xam ne moom la ñuy liggéey sëriñ Tuubaa fii ci tool ñu ngi sant ñëpp tey ñaanal sëriñ Jili Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñ tool yi sëriñ Mbambal ak Cheikh Gaye nag njaboot gi yëpp sunu borom def na tawfiix dafay nu saata daayit barke bi daaru salaam sëñ Fallou Galas ñoo ngi lay nuyu di la siyaare di la nuyu ci ndigalul sëriñ Sidi Baaxum waa daare saam gépp ñu ngi lay nuru di la siyaare di ñaan yàlla mu dool nu fan wu gudd ak wér di ñaanal sëñ siidi Baaxum mii yàlla yàggal ko fi sunu kanam moom mi nu dimbali ba boole ci liggéey maam Cheikh Anta Mbacke bii di ñaan maam Cheikh Anta yàgg fi lool te wér ànd ak jàmm ak taw tawféex yàlla dool nu fan wu gudd ànd ak wér képp ku fi teew yàlla na yàlla faj say aajo biir ak biti ndimbale yàlla barke bi yonente barke maam Cheikh Anta Mbacke. salaamaaleykum wa rahmatulah ngi siyaar bu baax di ñaan yàlla suñu borom sëñ Cheikh Anta yàlla yàggal ko fi lool dem ànd ko wér ak mboolem seex yi ànd ak moom yëpp ak mboolem taalibe yépp tey nag ñoo ngi fii ci toolam yi fii ci longoor Mbaye ñu nag waa Bambey waa Sinthiane gépp bi yëpp wax dëgg yàlla ñëpp ànd na ñun ñëw ngir jàpp ci liggéey bi te ngir wéyee ndigal te ab bi moom amul lu mooy ndigal te it euh, keroog bu ñu jógee ci màggal gi la ñu jox ndigal li te itam bu ñu ko doon joxaat bët bu seet itam taal bi itam waxtu ne moom ndigal la ñuy xaar te waxtu itam ñoo ngi ci ndax liggéey sëñ Tuubaa bëgg te dimbali nañu itam kon ñoo ngi sant bu baax ci liggéey bi ñuy liggéeyloo ndax fi mu jëmee am nañ ci yaakaar bu baax te yaakaar ji du lañ mukk nag ndax liggéeyu lu lu liggéey sëñ Tuubaa te ci moom lañ moom lañ koy royee ci ci loolu lañ koy royee ñoo ngi koy ñaanal bu baax mboolem ñi mu àndal di ko ñaanal yàlla barki sëñ Tuubaa yàlla yàggal ko fi lool te ko ak wér ba lim yéenee liggéeyal Sëñ Tuubaa yàlla suñu eggale ko bu baax nag suñu mbokk seen mbokkum bi sëñ Ndongo Mbay mooy jaari taal bi yëpp nag di ñaanal Cheikh sépp itam yàlla suñu borom yokk seenu taal bi te nangul leen seen ab liggéey te ngërëm li ñu sàkku ci sëriñ bi yàlla nu ko saa borom nangul ci barkib sëriñ bi di sant sëñ du Dieng ma ca Daaru Salaam di sama sëriñ sama wasila man Modou Sarr kër laay sëñ Càlla Mbay mi nga xam ne dégg nga ko moom moo bay lu tool bi di ko góoblu noo ngi ñaan ci yàlla mu guddal fanam lool lii nga xaaye moom la sombi yàlla dogal mu woyof ci kawam te lii yàlla bu muy sunu mujj gi ñëw si tool bi kontaan nañ ci trop ñëw na ñëw nañ waa kër Laay Moussa Dieng bàyyi fa kenn Tijaan yaa ngi murid yéen ñëpp ñëw nañ Tijaan yaa nu gën a sawar ci tool bi ñun ñëpp ñëw nañ yàlla na yàlla dolli xiwal guddal sunu fan ñun ñëpp barke maam Cheikh Anta تغفل المريض تدمعين الملك wa naa ko yëkkati dafa dëppoo ak kàddu yi nga xam ne moom la Serigne Cheikh mi nga xam ne moom lañ fekk si woon seex Cheikh Thialla Mbaye woo ma léegi ne da bëgg ma jottalil ko kàddu yooyu waaye kàddu yi daa mel ne dafa dëppoo ak kàddu yi sëñ bi bëggoon wax kàddu yi Serigne Cheikh Anta yëkkati dafa wax ne sëriñ jiili moom de ginaaw bu santee yàlla sant yonent bi sallallahu alayhi wa santaat sëriñ Touba Xaadimu Rasul mi ngi feddliwaat yaakaaram akuk cantam ci sëriñ Modou Rokhaya ndax nee na jataay bii day su dawalee ci ginnaaw tuuti kero ba fi sëriñ Modou Rokhaya di ñëw ànd ak ku ñuy wax laay kan ak Baara Faal benn néeg lañ ko fekkeel mu am ko sëriñ bi dugg ca biir nee ba pajaas buñ def ay xotti gerte moo ca nekkoon waaye nee na booba wóor na ko ne sëriñ Modou Rokhaya daa ñëwoon ngir defar si ko jataay boobee nag nee na biig bi mu tëddee xalaat seen jataay yéen ñetti ñii xelam delluwaat na ci jataayu sëriñ Modou Rokhaya boobee waaye nee na muy gën daan santaat yàlla ndax fii ñu toog 1995 la fi sëriñ Modou Rokhaya yabal sëriñ Cheikh Anta boobu fii ñu toog sëngalub ñetti néeg moo fi ne. sëriñ seex dëkk ci benn sëngal bi waa kër gi dëkk ci ñaari sëngal yi sëriñ Modou Rokhaya wax sëriñ Seex Anta na ko damaa bëgg nga ñëw dem Longhor seeti sëriñ Seex Mbay loolu 1995 la 1996 ci la sëñ Modou Rokhaya dem àjjana keroog bi fi ñëwee sëriñ Seex Anta mii daf ko wax ne ko ngan ga sëñ gaawaan defaloon sëñ Touba de aw ma ko ba ko fukki nag ak ñaar. waaye man fii ma toog danaa fi jébbal fukki bakkan ak ñaar yaakaar naa ne keroog fukki ruu ak ñaar jébbalu nañ ci sëriñ Seex Anta fi dajale ci ab xaalis waroon naa toll ci fukki junni ak juróom-ñaar ci jamono yooya ba ñuy dem moom mii moo ma ko jox ne ma boo demee nag joxal ma ko sëriñ Modou Rokhaya ndax mooy sama sëriñ lañ ñaana lañ nuyoo sëriñ Seex Anta ba ko dajale fukki junni ya manqué na ñetti téeméer ak lam ko jox moom ci addiyee boppam bañ àggee ba ma joxe sëñ Modou Roqee xaalis boobu daf ma ne ana jam ñàlla jin doon nuyoo seex ma ne ko mi ngi nii mu ne ma andi jox ma sama alala boole ñaari alal yëpp téye waaye booba da doon defar lu ko doon taxar defar mooy jataayub tey bii loolu 95 la 96 le 27 juillet 1996 sëñ Modou Roqee dem àjjana sëriñ Seexante mii tàmbali liggéeyam bii te musta dog sëriñ bi nee na mu lay seeral ak cant ci rakkam ju ñuy wax sëñ Modou Mamoun Mbaye nee na ñoo bokk sëñ Abdou Khoule kër gi li ko ci war lépp war ko ci te gënu ko ci genn wet waaye mu futteeku waat fob lépp jox ko ko muy jëwriñu kër gi waaye mu fobaat jëwriñ googu teg ko ci loxol doomam sëñ du Mbaye bu liggéey bi sottee ba mel nii rek seenu jàmbaara nee na kon mi ngi lay seeral cant googu di xam ne lim def way juróom bu baax wa rek a taxoon mu di ko def ak Serigne Touba waaye nee na mi ngi koy booleeg Serigne Touba yàlla na ko yàlla fay nee na di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo doon bay tool bi ndax moom kat day wax ne sama adduna sépp dajale jox sëñ Modou Rokhaya ci sama wàll te moom 95 jooju may wax nag wi mujj andil sëñ Modou Rokhaya màggal wul daadaa bu mel nii la sol pël moo fa jiitu pël ba toog ci buntu kër ba di ko xaar fekk sëriñ bi ca kër gu magga sëñ Modou Rokhaya maa dem ci moom na ko sama ne jaay ñëw na mun a xanaa la muy àndal daa agsi gut ma ne ko déet mu a ma bàyyil ba mu agsi nag waa agsi mu ñëwal boppam ba mu ko jébbulee bay dem sëñ moo Rokhaya daf koo waat mu dëpp mu ne ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko sama jëmm ji laa la may loo ci ñaan yàlla def ko loolee nag pas-pas moo ko ko mayoon nee na booba ak léegi liggéey bu mu mas a tàmbali ci kër gi jigéen ñi jiitu ci kër gi di soxna caan soxna umul ndonga ba ci soxna absa ñoog seeni doom liggéey bu mu song ngir sëriñ bi nee na jàpp nañ ci kon nag na da leen di booleeg sëriñ bi nga ñaanal leen sëriñ bi fayal leen boppam bu ci noppee mi ngi sant bu baax sëñ Axma Mbay rakkama de waaye nee na wóor na ko ni Cheikh Ibra toppe woon sëñ Touba la toppe ci ginnaawam yitteem ak soxlaam akuk bëggam nee na bu ko xamee dara duutu ci des kon nag nee na mi ngi lay seereel ak cantam ci moom di la xamal ne moom amatul seriñ bi da leen di bàyyi ak bi rek di sant nag sëriñ Moussa Ndiaye ndax nee na moom la doxalee diggam ak sëriñ bi te gis nag bis bu yàlla sàkk lu koy dolli ci pas-pas sëñ bi ak luy dolli ak taalibeem ak luy gën a may longoor ndam ci lay xëy kon nee na moom it da koy bàyyee ak sëriñ roq ya di sant nag waa dëkk bi ndax nee na dëkk bii kat gore rek a leen bàyyee ak moom ñoom ñëpp seeni wayjur sëñ Abdou Khoule lañ àndaloon ñu ci bari ànd ak sëñ waaye kenn ku ci nekk jomb ngaa tuxu ngir jëmam ñu toog toog ak moom kon nag nee na nga wax sëriñ bi mu ñaanal leen kenn ku nekk ay yitteem sëñ ba wuutu ko ca defal ko ci lu kawe njortam cant gi ci das nee na diggam ak sëriñ bi la nee na moom mënu koo sant ndax sëriñ bi defal na ko loo xam ne wóor na ko ne moom dong du taalibe wóor na ko ne moom dong ëpp lu muy joxe ci sëriñ bi waaye xam na fu ko bi teg ak nu ko sëriñ bi def noo xam ne wóor na ko ne jëmmi sëñ mu roqee tax mu teg ko fa kon nag nee na day dolliwaat ak laxasaayam gën a la feddliwaat yaakaaram di xamal sëriñ bi ne fasut yéene njaaloo loxob sëñ Modou Rokhaya bi lépp lu dajale ci kër gi dana ko yët sëñ Modou Rokhaya loolu la fas jaayanteeg sëñ Modou Rokhaya te du ci dellu ginnaaw nee nag leen beral ak cant ndax nee na lii ngeen def gën naa dëgëral yaakaaram gën naa rafetal njortam gën na ko wóolu it fi mu jëm ndax nii ngeen ànde yendul sëriñ bi ci tool yi te wóor na ko ne bu nappee ci sëriñ bi lañ koy yët bu buñ ko yotee sëriñ bi moo xam ñu mu koy tisaare jëmmi sëñ Modou Rokhaya tax deex tax ngeen def ko nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen wuut yàlla wuutu ci seeni soxla ba ngeen toog di joxe ndigal ñuy def na ngeen ko bëggee ci barke sëriñ Modou Rokhaya li ci des sëriñ bi dafa téléphoné sëriñ Jili tool bii yaakaar naa ne longoor ku fi mas di ñëw ngan rek ngay ñëw ngan rek lañ fi mas di woote ngan nga xam ne bari nañu ko fekk teraanga ji dara mosu cee manqué waaye ren sëriñ bee wooteel boppam ne képp koo xam ne ci man nga aju digal naa la na nga dem longoor digal naa la na dem longoor amul jenn jëwriñ ju màggal si Touba te déggoon digal loolu ci làmmiñu sëñ Modou Rokhaya muy sëñ Cheikh Anta sëriñ Touba nag dafa wax ne ab murit laa tafxalu shay'an bi xayri izni fal isnu shartun fi xaboolu sha'ni mbir lu mu rafet rafet te digaluñ la ko sëriñ bi nee na njëriñ newu ci waaye bu ndigal jotee nag boo ca tegee benn baat lu jëfe ko sëñ bi nee na ñàkk nga tuyaaba ja sëriñ bi nee na liy liy dàq tuyaaba ndigal mooy dàq picc ci ab tool mooy sëriñ bi yëkkati kàddoom nga teg ca benn baat kon sëriñ bi bi mu joxee ndigal jox ko mbooleem ko aju ci kër gi jox ko sëriñ jiili mbooleem jëwriñ yëpp a maase déggandoo ndigal loolu waaye bañ déggee ndigal li sëriñ Tuubaa dafa wax ne sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbahatun nee na melaw murit saadix ñeent rek la nee na ñeent yooyu nag nasamtuhaa xaw faxtiraar danaa ko way ngir bëgg bañ ko jàppe boppam ab murit te doonoo ab murit jàppe sa bopp ab murit mu wóor sëñ tubaane ko murit nga ko gën a wóor ñu ne murit yooyu mooy lan sëñ Tuubaa ne asidqu fi mahabbati sa bëgg sëriñ bi jëmmi sëriñ bi da lay gënal sa jëmmi bopp kon loolu bu ndigalul sëriñ bi ñëwee kenn waratutoo am ndigal ndigalu sëñ bi dañoo war a gënal sun yi tey bopp yi tey sëriñ bi dañoo war a gënal sun yi tey bopp kon asidqu fi mahabbati cheikh abad su mam tisaalu amrihi hay su warat nee na saa yu sëriñ bi ne jóg leen nee na ku toogati bokkoo ku toogati doob murit bu sëriñ bi ne toog leen ku taxaw doob murit kon su mam tisaalu amrihi imtisaalu awamir mooy foo déggee baatum ndigal nga daal di jóg wuti ndigal la sëriñ bi nee na ndigal su ma ko joxee lii tax ma xam taalibe bi def na ndigal li wala defu ko mooy saa yu ma diglee dama cey boole añ ba su añ bi dikkee fekk taalibe ba jëf ndigal la dafay toog taalibe ba jot ay xiwalam su añ ba delsee danaan ma ka nga ma joxoon ndigal ka deful ndigal la ca mënu ma faa toog moo tax delsi waat naa nee na delsi gi tuyaabe ji delsi moo ma xamal na jëfoon ndigal la kon su mam tisaalu amrihi hay su warat baatum ndigal fu nga ko dégg rek jógal wa tarkul ixtiraadi bàyyilal gaaral sëriñ bi li muy woote daa bari màggali woon naa xel koo mi ngi waaj ba ñëw sama tool yi day waaj a booy tarkul ixtiraat la sëñ bi wax gaaral lépp loo xam ne sa xel dala koy jox sëñ bi nee na dàqal loola wa tarkul ixtiraali mutlaqan walaw bi baatinin nee na doonte sax da xalaat ci baatin ca jëfagoo ko ci saw làmmiñ wala waxugoo ko nee na sëriñ bi nee na dàqal loola du ak murit wa mahaho salabul ixtiyaar yi sëñ bi nee nga boole ci nag bàyyi day naagal sëriñ bi ne jóg leen dem nga ne naa ba suba sëriñ bi ne gontu leen nga ne naa nekk naa fanaan sëriñ bi ne xëy leen nga ne naa nekk ba añ ba noppi sëriñ bi nee na bu la fekkoon nga tibb tibbub ceeb di ko waaj a ñu ne sëriñ bi nee na tegal tibb ndax nee na boo ko lekkee aram na su mam tisaalu amrihi haysu warat mu wax ne nag wa tarkul ixtiraadi mutlaxan walaw bi na alayhi fi ma xadrawo boo bàyyee loolu nag wa ma huwa salabul ixtiyaari li usli sannihi bila inkaari sëñ bi nee na ku boole yooyu nag fa kullu man jamaha waxut ku def benn bi bàyyi benn bi de fa kullu man jamaha ku boole ñeent yooyu fa kullu man jamaha haasihi ci ñeent yi ma leen wax sëñ bi nee na kookee mooy ab murid sadiq fa kullu man jamaha haasihi sifaat min al muridina fa yudriku sixaat kon war ñuy déglu bu baax baatum ndigalul sëriñ bi ba buñ ko déggatee bañ caa teg suñu ndigali bopp te xam ne sëriñ bi du ñu digal lu weesu sunu njariñul bopp ndax sëñ Tuubaa moo wax ne waqdi hawaa'ija llazina daamoo fii xidmati yow yàlla fajal aajo yi ñi nga xam ne ñoo sax ci di ma liggéeyal del wax ne inna la siina saarahoo fii xidmati ñi gaawal tabbal ajana ñi nga xam ne ñoo sax ci dima liggéeyal kon ku bëgg sa aajo faju ci àdduna bëgg sa aajo faju ci alaxira dangay ngay sax ci di liggéeyal sëriñ Tuubaa mbokk yi buñ nax suñ bopp nan bàyyi boole sëñ beeg suñ bopp sëñ bi loo ko bàyyeel booleel sëñ ba dem toog sëñ bi da koy wéetal ci wax ak ci jëf ak ci xalaat ak ci wéet ak ci wéetaliku waaye boo ne sëñ beeg rek sëñ bi dem toog kon ndigalul sëñ bul ndéggati nañ fàtte lan defoon te dëgg ma li njëng suñ kanam ndax jamono ji ngay toog di xaar ba xam ndigal li da ngay nekk ba ngoon wala da ngay nekk ba suba ndax xamoo danga nga fi faatu wala déet. sëñ Ablaye Fall Ndar daa woote carrière ce jamonoy sëñ Fallu am taalibeem bu ñuy wax Moussa Thiam di jaay guro ce Gusaas mu ne damay soog a jënd pañeb guro te pañeb guro bi su ma demee dañ ma koo lebal naa ko jaay ba noppi ma soog a dem ca carrière ba pañeb guro boobu ba mu ko teppee ca ngoon la ko saxaar rey ñu ñëw ne sëñ Ablaye Fall Ndar am na sa taalibe bu faatu ca Gusaas mu ne ah sama taalibe lu mu doon def Gusaas ndigal laa nga carrière ca ndok te malaaka mi rey xamut carrière bu demoon du faatu kon am murit war nay bàyyi xel boppam ci biir loolu sëriñ bi di wax ne sëriñ Jili sëriñ bi nee na mi ngi lay seeral ak cant ci sëñ Asgay nee na li muy def ci kër gi doomi boppam yim jur defuñu ko fi kon daa jàppe boppam ne mooy taawub kër gi lii mu def nee na ma ko tàmbalee ci yitte ju am ci kër gi ba ci teen bii bi ñu koy defar ci kër gi ba ci liggéey bi gis nga oto mi ca liggéeyub jàmbur la yor waaye sëñ Tuubaa jaral na ko wëllëre jaral na ko ak bokk jaral na ko nee na li muy def lépp nag yaakaar la ci am yaakaar kepp yaakaar ji nag sëñ Tuubaa moo ko mën a faj nee na nga ñu boolel ko koog sëñ Tuubaa mu faj lim fi yaakaar na ci jot ci barke Seexul Xadim sëriñ bi dellu di wax ne sant na taalibe yi ñu ak ñi wuy si waaye bu ngeen déggee muy wax ci soññe bi daa tànnoon yi sëñ Moussa Thiam a ngi nii bàyyi ko Thiamène sëñ Daaru Baaxum a nga ne bàyyi ko Daaru Baaxum sëñ Donga Mbaye a ngi nii bàyyi ko Sinjaan sëñ Seex Ndiaye ne bàyyi ko Baku Njéeme waa kër sëñ Makhtar Fall Ngame ña nga ne toog ak waa Daaru Marnaan ñi ngi fi toog sëñ Sidi Baaxum moom sëñ Seex Baaxum fi yendu démb ak njabootam ngi fi kenn demut ak bokk yëpp sëñ sëñ sëñ laay jeng bàyyi ko ndogal tund wa kenn bàyyi kenn desu fa ñoom ñëpp àndandoo ñëw bokki daaru marnaan Mamadou Saara nga ne biig ba ko sëñ bi jot ceerno la woo na ko lu tax ma joxe ndigal ngeen di toog bu subaa boo xëyee jëlal ñaari oto def ci mbooloo mépp bu ñu amut gasoil nga jaar fi ma jox leen gasoil su ngeen demee fekk liggéey ba jeexit ngeen teg fa seen tànk ma ndax nag xam nañ luñ sëñ bi bëggal longoor ndax ñun xam nañ ko ndax duñ bàyyee suñu bopp ak sëriñ bi te xam ne dunduk àdduna gi yàggut te ku lagal sa ndijoor bii koo fa gis ku dul sëñ Touba da nga xam ne sëñ tubaa ko fa gën. kon ñun waa Darou Salaam suñ digganteeg sëñ tubaa dafa leer rikk waay bun bun sëñ Modou Rokhaya gën a gore rikk waay bun sëñ Cheikh gën a gore rikk waay bun sëñ Modou Mamoun gën a gore rikk waay bun borom gaawaan gën a gore sëñ tubaa xëy na ab lay jóge daaru alimul xabir jëm Mbakke lay bi di ñaas ci yërey sëñ Tuubaa yi maam Cheikh jiitu ci kanam di xalango xaaxaam ba di ko jam bu gën a ñaw bii ñu doon jam lay ba di wàcc ci kawam sëñ Tuubaa topp ci ginnaawam mas naa dikkal sëriñ bi naan ko ñaas ma ma des sa bambara nga sëf ma laas ma tàngal na ab say ba mu tàng mu ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko nit ñëpp dañ ma naan da ngaa rafet ak loo bokk ak sëñ Tuubaa ma bëgg nga ñaas sama leex bii ba ku ma gis xam ne sab jaam waaye sëñ tubaa yonent bi sëñ ko yonent bi noonu laa meloon moom dama doon wax naan ak a neexoon ma seen ak dëkk goo xam ne daa tege ci ab janj catul dégg taxaw yonent bi di ci bëgg teg teg tànkam ma ma tegal ko sama lex bi mu teg tànkam ci sama kaw lex bi dégg di ma jambasar noonu la sëñ tubaa meloon ak yonent bi kon ñun noonu la ñu war a mel ak sëñ mel kook sëñ tubaa nag mooy mel kook sunub sëriñ bokk yi nañ yem ci ñun sëñ tubaa booleel sëñ bi nee na xolam sedd na liggéey bi ñu liggéey wóor na ko ne ñi ko doon liggéey duñ ci mos aw fep ku bay ab tool ba mu àgg te boolu woo ca xam nga ne doo ci am aw fepp luñ ko doon bu koy ba joxe dañ koy joxe ngir yàlla waqfu lillahi bay ko ba noppi sëf ko ci oto fay oto ba andi daaru jox ko sëriñ bi ku ne xam na ne sëriñ bi réere wut cere mënut a jeexalub saaku waaye nu mu koy def séddalewaat jaami yàlla yi kon bu ñuy wax infaq fi sabilillah mooy lii ñuy def kon nag sëñ bi nee na xolam sedd na mi ngi ñaan yàlla liggéey bi yàlla nañ ko teewaat déwén te lañ fi daje déwén yàlla nay asakay li ñuy liggéey ren te moom mii di sëriñ Seex yàlla bàyyi ko fi mu dund ci at yu baree baree bari ba fekkee mu njaboot gépp te lépp li muy liggéeyal yàlla nag yàlla ko yàlla fay ci njaboot gi barke bi sëñ tubaa def ci kër gi sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla at bis bu yàlla sàkk waxtu bu yàlla jàng muy gën a fenk ni jant bi fenke te du sooba mukk gaa ñi yéen ñi ñëwoon wàcc ngeen waaye du ngeen wàcc sëñ Tuubaa des de a ah, nee na woon mel na mag ci njaareem ah Samba mii de moom ñeme wut bor de mu naa ah, mu ne ko woowu ma leen ngeen di ñëw may soog wut lu ma leen añale damaa wuti am ndugg wut lu may togg togg ba mu ñor ba ma dëñale ba dënale ba mu yaatu ma wut samay ndoxi raxasu teg wut sama ndoxi naan teg teg samay napp soog leene woon na leen kaay leen yaa ahla bari yaa ahla bahri ujuuli bari bahri saqaayi géejug texe gi wallaahu suru ni yàllaa ma dimbaleel boppam wal xalqu tatbahu nii mbooloo mi danañ ma topp sañ bañ fil bari ci biir jéeri ji wal bari ak géej gi saa naf xin bilaa dararin buñ dikkee fekk may njëriñ lu ànd ak lor kon am ngeen jaaraama ñi ñëw war nañoo sant yàlla bu baax ndax ñàkk cee bokk wóorut ñor na sëriñ bi lool ki ko doon liggéey ñor na ko lool te lii rek la bëggoon ñëpp bokk tuyaaba ji kon nag sëriñ baa ngi dellu di ñaan yàlla mi nga xam ne moo moo bari le te dara du jeex ci moom yàlla na ko sàmmal ruu fi nekk yëpp ñu fekk waat ko at yu baree baree bari ci bark Seexul Xadim ruu ci nar a manqué yàlla na ko suñ bi def ci ruu yi jën yi ak nag yi ak xar yi ñu jariñoo ko te mbàyyi fi ruu yi ñu jaamoo ko yàlla sëriñ Seex sëñ bi nee na mi ngi santaat di gën a ñaanaat di la gën a xamal ne loo gis ci sëñ Modou Rokhaya jàppal na asaka rek la waaye gisu ko dara sëriñ Touba daa toog ci njaareem di doxantu am armeel yum àgg damay bañ a tudd nee na dégg yuux ya bari ba sëriñ bi daa dëpp bi mu am na fere bu mu yee ne ko doxunu dem mu topp ci ginnaawam ba mu agsi ci armeel yi mu ne ko xanaa fii de ku ma mës a liggéeyal tëddu fi mu ne ko xawma ko fi de mu ne ko xanaa ku mas a liggéeyal ku ma liggéeyal tëdd fi mu ne ko xaw ma ko fi de mu ne waaw kay seen yu seen yuux yu bari yi bu amoon kenn ku ma mas a xëyal du fi am tibal suuf jox ma ma dimbale leen mu tibb suuf jox ko sëñ tubaa ñaan tifli ca ne ko wàqi sotti ci armée mu wax ko sëñ tubaa mooñ ne ko tey ji xam nañ ne ahmadou ñëw na fi tey xam nañ ne ahmadou ñëw na fi kooku mooy kooku mooy sëñ tubaa ramub ramub murit du dum xëyam sëñ daam abdourahman loo da ko ne woon mbàkke may ma su ëllëgee bàkkaar yi murid yi def yëpp ñu sëf ma ko man te murid yëpp dem na bàkkaar bu mu murid def rek sëñ daam Abdourahman loo daa ñaanoon sëñ Tuubaa ko na ma ko yàlla teg bu ma dee tàbbal sawara man ma dem sawara murid yëpp dem àjjana sëñ Tuubaa ne ko Abdourahman sëñ Fallou nee na Abdourahman mu ne ko Mbakke mu ne ko murid bu dem sawara doo ko dégg ëllëg murid bu dem sawara doo ko dégg tiitaroo war koo góorgóorloo fexe ba bu ëllëgee mu jàppale sëñ Tuubaa ci ñiy ramu loolu mooy ngóor mu murit kon nag sant nañ sant yàlla sëriñ bi nee na ñu ngi wàcce foofu kàddu yi di leen gën di ñaax ne nañ waaj yeneen liggéey ngi ci suñ kanam te ñun dañoo jaayanteeg sëñ Tuubaa te duñ xaaj dun dellu ginnaaw nee na nag na ñëpp toll ci ker ya toog bu ñu xéeloo ba noppi oto yi mën na sa cee yeb te mi ngi wax boro sëfoor si nañ def ndànk nit ñu fi ñëwee woon ñu delluwaat ko ci alhamdulilahi rabil alamina yàlla bu ci kenn xuriku soxla yeen bàyyi ci kër ga yàlla nañ ci sëñ tubaa wóotu buñ demee fekk mu fajo sëñ Modou Rokhaya nee na woon sëñ tubaa laay liggéeyal ba samay moroom raw ma nee na bët du ko gis nopp du ko dégg sëñ tubaa mooy koo xam ne mooy daba jote rawe daba dabe jote rawe xëy mi nga am fii boo demee ña fa nekkoon te xëyuñu lañ xëy woon ci seen saala la ko sëñ Tuubaa di sa sëñ Ibra Baaxum daf maa nettali ca ca Thiel ca Thiel dama leen di wax rek njariñ nee na bi muy bi muy doon ab sëfoor di dawal am na lu mat juróom-ñaari carte grise yor ay super ca Ndakaaru booba day soog a xew sëñ Ibra nee na damaa leb ab super ci ab naar ñu lebal ma ko ma yóbbu ko di defar lu bang yi nee fi ma bàyyi ata bi di defar lu bang yi sëñ Mor Faasa Baaxum sama mag yónnee ci man woo ma ma bàyyi fa oto ba ñëw wuy sëñ moor Faasa mu ne ma damaa bëgg nga dajale xari tabaski yi dem ko sëñ Mudu Maamun nee na ma dajale xar yëpp saf ko ci banoon oto ñëw jox ko sëñ Mudu Maamun mu ne ma Ibra Baaxum mu ne ma ne ko Mbàkke mu ne ko dama laa soxla demal ca daara ja xaar ma nee na boole koog Babacar Mbay nee na ma toog ca daara ja ba fa juróom-ñaari weer juróom-ñaari weer sëñ bi ma nee na ma toog ba mu yàgg sama xel dem ci oto bi ma leboon te bataliwu ma ko kenn ca gaaraas ba ma ko bàyyi woon xaw ma ci dara te am naa fi juróom-ñaari weer nee na ma ne ci daara ji man dey damaa war a ñaan daara ji lakk. ndax bu lakkee bu lakkee sëñ bi dañu ma fàttaliku nee na ba ma xëyee Babacar Mbaye mi mu yónni boole woon ak man na ma kaay wuyu sëñ Moudou Mamoun nee na bi ma dikkee sëñ Moudou Mamoun na ma Ibra baaxum ma ne ko Mbacke mu ne ma nit bu fekkee lu def ci xelam yàlla def ko day def ci am xelam du rafet. nee na ma ne ko mbakke tuub naa ko mu ne ma li ma la fi doyee su noppee dootoo sonn ci adduna dootoo sonn ci àllaaxira ma toog ñetti fan mu ñaanal ma nee na ma wuuti fa ma joxe woon oto ba nee na ba ma dikkee fekk naa oto ba ñu feeraay ko lépp sàcc nañ ko jaay te oto ba bees peq la ci dama koo leb nee na ma waax wuuti waat Ndakaaru tubaab ba ma ko lebaloon nee na bi ma dikkee jub ko mu ma xanaa kii du Ibra Baaxum ma ne ko ah kay mu ne ma sama alal ma ne ko bul ma laajagoon alal ki ma téye woon bu ma bàyyi wutoon dootoo gis jëmm ji bay gis alal mu naa ne ko oto booba bul ko waxati dawut benn mètre aw ma ci benn dërëm yàqu na ko fi ma jaar mu boole maag doomam na dem leen xool ko su fekkee ne ma res na ko lon ko andi bañ dikkee doom ji ko c'est pas l'appel kii yàqu na ma xool tubaab bi tubaab bi xool ma léegi nag ma ne ko yaa mu ne ma téema laa lebalaat beneen ma ne ko boo ma lebalaat beneen ñaari boroy oto lay doon da ngay wàcce beneen embauché ma ci may daw nga di ma fay bu bee matee nga lebalaat ma beneen mu ne ko may naa la booba may la bii xoolal ma mbirum sëñ gis nga bu baax mbirum sëñ bi moo tax sëñ Tuubaa laa doon liggéeyal bañ raw ma doo am kon nag nañ dolli waat sunuy laxasaay ñoo ngi leen sant di leen gërëm di wàcc foofu kaddu yi di ñaan ñun ñëpp buñ añee ba noppi ñu def ndànk dugg ci oto yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah na ñëpp tàllal